téere bi ma bi ma présenté tey dafa di loo xam ne euh, dama di doomu Sénégal bu màggee bi bitim réew di dem ak ñëw Sénégal ba euh, bi mu commencé liggéey liggéey Maroc euh, tombeek jamono joo xam ne Maroc dafa tàmbali euh, liggéey koomam liggéey développement am ma nekk ci cabinet bu mag mu may ma possibilité ma bokk ci consultant yi nga xam ne liggéey nañ stratégie biñ teg fanweeri at yu mujj yi mooy lu jëm ci mbéy mi lu jëm ci industrie li jëm ci éducation li jëm ci lépp luy services sociaux ñu naan euh, faj mi euh, mbirum euh, kër yi loolu yëpp liggéey naa ci def ci ay jéego ba tey ñëpp gis fi Maroc toll ma am aussi opportunité euh, jàppale ay dëkk yu bëri ci seen euh, plan de développement euh, donc aussi am secteur yu ma liggéey ba am fa ay jéego décider nag ni comme Sénégal tey dañ nekk ci selebe yoon bi am at yi ñëw vraiment ay enjeux yu bëri ñu war a euh, relever muy euh, déjà gouvernance bi di économie bi di euh, social bi di mbirum capital humain muy nit ñi di aussi environnement bi naka lay indee sama contribution livre bi nag mooy sama contribution ni ma gisee Sénégal tey ak jéego yi ñu def ci fukki at ak ñaar yu mujj yi di jéego yu am solo ak lan lañ def lu matul pour proposer solution benn plan de développement bi nga xam ne suñ ko tegee ci yoon dina tax Sénégal développé dina tax Sénégal jëm kanam ba pare dina tax suñ doom yi nekk ci dëkk bu naat donc loolu mooy téere bi téere bi nag ni mu ko waxee un Sénégal képp génn génne téere dañ naan ndax fii nga far wala fële nga bi farul fenn dafa di liggéey bu objectif maanaam li baax dañ koy waxee li bon aussi ñu wax ko te xam ne suñ buggee tabax suñ dëkk foog ñu objectif foog ñu xool ñi fi jiitu lan lañ def lu baax muñ ci yokk dara mu law ak lan moo ci matul ndax ñu corriger ko mun indi leneen lii tax Sénégal jëm kanam donc loolu mooy ci tënk ci gàttal li nekk ci téere bi